dalen ak jàmm mbokku internet yu sen football TV nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen képp ku xamante nga bees si chaîne bi lé abonnel cliquer ci cloche boobu nga gis vidéo bu ñu nga man ko sétane bu faté timi un vidéo c'est très important mbokk yi tey dañuy ñëw nak wax ci futur bu équipe nationale du Sénégal bu ñu waxé futur bu équipe nationale du Sénégal gis ngeen né Aliou Cissé dafa 27 joueurs man bima ma taxawee moom question bi ko ñëk a laaj dafa ma laaj sama xalat lan mom manqué ci équipe nationale du Sénégal ma gis né dafa manqué ay jeunes muy bari nak jeunes yu xamantene dañ koy wax ci commentaire yi ay Samba Diallo euh, Kaly Sène Noah Fadiga Iliman diay tay nak dam leen jox ay information ci joueurs

parce que Iliman Ndiaye boo dispositif tactique bi nga classé 4-2-3-1 deux milieux récupérateur numéro 10 Sadio Mané le parfait doublé de Sadio Mané c'est Iliman te mu ngi nekk commencé di performer mais entraîneur bi ko yor au niveau de Sheffield United nee il faut que ñu may ko temps temps d'adaptation, au niveau de première ligue, parce que championship sax laay wax parce que foofu dafa bëri ay duel dafa bëri mbëkkante te moom dafa nekk jour, bu xamante ne dafa élégant jour, bu xamante ne juste technique la am mais gis naa ne renforce na bu baax a baax physiquement Ben jour, bu xamante ne temps yi maa ngi koy gis souvent yéen a ngi koy laaj c'est Samba Diallo Samba Diallo jolu ñuy yàkkamti parce que moo ngi nekk euh, Dynamo Kiev ci xale yi mais gis ngeen ne waa Dynamo Kiev dañ ko prolonger jusqu'à 4 ans y a des équipes comme Manchester United Marseille Fiorentina équipe yu bëri bëgg nañ ko jënd mais nañ ko bàyyi xam mu am temps de jeu du côté de euh, Dinamo Kiev si euh, équipe A bu boobaa dina mën ñëw équipe nationale Sénégal beneen joueur bu xamante ne dama euh, ko moom ñoo ko prêté daaw Chypre jamono bi dañ ko prêté au niveau de Zurich mu nekk fa di def ay prestations que ça soit passe décisive que ça soit but c'est un bu xamante am nañ ci moom yaakaar bu baax baax y a un s'appelle John Lepi xam naa bëgg ngeen ko trop mu nekkoon Oslo Foot une petite catégorie on le box box on une karma euh, carrément idolom c'est euh, Paul Pogba Nous gis récemment eu l'Olympique de Marseille mais tactiquement progressé parce que début c'était compliqué parce que xam ngeen ne xam France euh, am a joueurs yu xamante dañu am temps d'adaptation bu gaw mais y' a d'autres jours, joueurs yu c'est difficile donc c'est la même génération que Pam Matassar, même génération que le tour là Moussa Ndiaye bi euh, Barcelone C'est des joueurs yo xamante man je sais que après Coupe d'Afrique, bi ñom ñoo war mëna yor équipe nationale du Sénégal parce que day Cheikh Kouyaté c'est des joueurs yo xamante 32 ans la am il faut que euh, Coupe d'Afrique bi bu jéxé foog ñu may sen sens donc jarul yakam pour ñi xamante ne temps yépp souvent ci commentaire yi dañ may wax Mohamed mais attends Liman Ndiaye motax convoqué wuñu Noah euh, Sène Pape Matar Samba Diallo bu len ragal xam nga inshallah après euh, Coupe d'Afrique, Afrique bi le ci xibaar sax mën naa wax ne Coupe d'Afrique 2023 day am waa Côte d'Ivoire koy organiser donc bu ñu la Coupe d'Afrique bi c'est pas un problème pour l'équipe nationale du Sénégal Coupe d'Afrique bii di ñëw war nañ jouer donc mbokk yi nag li moo nekkoon vidéo bi di wax ne maillot disponible ba Maya Sénégal 2002 Maya Sénégal yi xamante ne moom la ñu Coupe d'Afrique bi bu verte bi ak bu Vous bi man contacter au 77 196 05 40 wala ngeen dem notre compte Instagram Football TV officiel di abonné bu baax a baax di abonné fii ci YouTube cliquer si cloche boobu ngeen gis vidéo bu vous dugal ngeen mën ko seetaan jërëjëf ba beneen sur Senfootball TV